bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci mbirum Iba Thiam ma ñu fekkoon ci ab l'appartement mu dee tey ñu indi leen ci yeneen di leeral ginnaaw bi nga xamante ne nii jot nañ ci teg loxo ñenn ci ñi nga xamante ne jotoon nañu fekkee boobu le jotaay waaw kay si si non dina leer ndekete yoo daam amaar laa leen wax moom mi di borom këru doomu Youssou Ndour bu jigéen bilee dafa loué woon appartement bi ngir iri benn gelam française waaw waaw ca waxtu woo xamante ne Iba Thiam ma nga feebar sonn woon bay bëgg a dee di wëccu nekk ci sukaraat ma ne daam amaar ma nga woon tëju ci ab néeg ak ab gellam nekk ca la leen neex déedéet du samay kaddu de daam amaar moo ko wax moom ci jëmm boppam bi mu jàkkaarlu ak way takk der yi ca jamono joo xamante ne ñu ngi koy déglu daam amaar di doom ci Ahmed Amar nekk borom waaye itam di xarita ak gorog Youssou Ndour ngir moom mi nga xamante ne moom Youssou jot na jël doomam bu jigéen di wuyoo ci turu Ndey Soxna Ndour dal di koy may doomu Ahmed Amar mi di yoon tegoon loxo loxo ngir mbirum Iba Thiam mi ñu fekk mu daal di faatu ci ab appartement boo xamante ne moom moo ko luwe woon bi ko dakk der yi di déglu bàyyin ma dégtali leen nag lan la leen wax daam amaar nee na ci mbir mi bés bi xew-xew bi di am moom moo luwe woon ab appartement ngir dalal ci ab gelam française te nag ndeem dafa am soxna bëggul woona soxna si yëg ko moo tax mu daal di luwe ca Almadi ànd ak loolu ba tey moom daam amaar muy xam la ne moom moo woo ay mbirum couvre-feu bi ci leen wax ne leen nañu fanaan moom daam amaar di xam la ne kii di Iba Thiam sax ko ba mu yegg si daam amaar na ca waxtu 23 heures ca la moom dem ànd ak gelam ba daal di tëddi bàyyi leen fa waaye de bi ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu am ci ñi nga xamante ne jot nañu fekkee boobu la jotaay nee nañu loolu day amut de daam amaar ni mu ko waxee demeewut noonu ndax ñoom nee nañu daam amaar fekkee na defoon lépp ndax waxtu wa nga xamante ne ki lay di Iba Thiam ma nga doon wàccu dret moom na ko waaw waaye a mooy ànd ak gelam boobu daal di tëju ca biir néeg ba waaye daam moom waxul loolu de moom nee na 23 heures ba daal di dem ba daanaka sax ba ñu demee ba 5 heures juróomi waxtu ci la ko jajaatal daal di fëgg ngir xamal ko ne ki lay di Iba Thiam ma faatu na ca la ne bërte te moom ak gelam française boobu lee di Alia moom Dame Amar mu ne ba mu yegee xibaar bi dafa tiit ngir bañ a am problème nag ca la daal di daw nee mu daal di dem seeti benn xaritam bu dëkkee ca Dakar Plateau daal di koy xamal li xew lépp kooku nag daal di koy xelal ne ko demal nga dem tëddi nga nelaw ndax boo yeewoo dina fekk sa xel gën a dal sa xalaat yi gën a leer nga mën a gën a xam nooy doxalee ci mbir mi mu daal di jëfee ndigal nee na ba tey ci ay waxam moom daam amaar mu daal di jublu dem ci benn appartement bu nekk ca Yoff ngir dem tëdd foofu dallu waaye daanaka foofu la ko takk der yi waa gendarmerie fekk daal di koy teg loxo xalaas daan dellusiwaat ak yéen jërë ngeen jëf